jaxate ak imam Cheikh Tidiane Ndaw euh, Alamine Senghor bi ñu fa teewaloon dégg nga ni koo ko dikkaatee léegi atteint ne démb waaye nag dogal ba mujj moom ñu ngi koy xam ñetti fan ci weeru juin di weer ñu dëkk ma allah waaye nag Baye kaddu yi yi Cheikh Tidiane Ndaw wala bokk yi nga xam ni Ba Jaxate ginnaaw moo njëkk a wax yi mu yëkkati jëmale ko ci ilimaani jëwriñ Ousmane Sonko lii fi dee nekk na kaddu yu ñakas wala nekk na kàddu yu rëy mooy amul kenn koy waxaat ba sañ jaar ci wax jooju maanaam képp koy koo dégg muy wax rek naan la kaddu yi Ba Jaxate wax maanaam ba tey jii dégguma kenn ku taxaw micro wala fu mën doon nga jaaraat ci kàddu yi Bah Diakhaté waxoon loolu moo lay firndeel ni moom Bah Diakhaté war naa xam ne kon wax na lu rëy wax na lu ëpp te itam firnde ci yan mooy kër gu Ousmane Sonko jaay wala nangam man jotu ma ne ci dëgg-dëgg loolu moo tax ñu teg loxo Bah Diakhaté ndax coowul kër geeg coowal yooyu déedéet man li tax ñu teg loxo Bah mooy kaddu yi mu yëkkati ci mbirum boroom ñaari tur jëmale ko ci Ousmane Sonko kaddu yooyu moo tax bokk na ci li gën a tax ñu teg loxo Bah ñëpp xam nañ ko yaa ngi dégg ndax bu ne la dafa yëkkati kàddu yu ñaaw jëmale ko ci koo xam ne dafa yor lenn wala koo xam ne euh, euh, njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo koy liggéeyloo ci loolu lañ ko tegee loxo yaa ngi dégg kon liñ mën a wax jamono ji mooy war ma war ma dafa yella ci ku ci doon moo xam muy premier ministre moo xam président man mii sax war ngaa toog ci mën nañoo toog ci mbedd mi ñu jikk ci kàddu yu ñagas jëmale ko ci man procureur di jóg daal di laaj fa ay jéego maanaam am na loo xam ni waruñ koo bàyyi muy dox nit di wax ci nit lu ko neex wala di wax lu ko neexee yaa ngi dégg dafa am loo xam ne war ma la te bu ñu ko ñàkkee dañuy ñàkk lépp tey maa ngi doon déglu kenn benn su ma jumul benn journaliste la boo xam ne mi ngi woon ci biir salle bi bi def bi gën na leeral lu bare bari ci dafa am waaye boo déggee li mu la na maître El Hadji Diouf ak keneen ci koo xam ni avocat bu Bah la ak imam Cheikh Tidiane Ndao ñeneen mbir mi dafa mel ni mbirum politique la gën a nuru ndax bu ñuy wax da ngeen jaay doole mais dossier bi ci dëgg-dëgg dugguñ ci wala boo waxuñ ci lu ci li xam si moo soxal dëgg-dëgg dossier bi nga xam ne mbir mi ci mbirum politique la ñu gën a wax Imam Cheikh Tidiane Ndao moom li mu li kii wax nee moom boo digloo ay kàddoom ci li mu gën a waxee mooy njuumte la te day jéggalu ndax Imam Cheikh Tidiane li mu gën a wax mooy moom amut benn dayoo wala sañ-sañ ci kanamu yoon wala ci kanamu àttekat yi lépp loo xam si ne yoon da ko war a teg da koy teg waaye nag bu fekkente ne kàddoom yi jug na tegu ci nit mu xaw andi ay ñagas mu ngi jéggalu amaan na néewul pardon comme ni ko ñu bari bari waxee waaye kàddu jéggulu ak riccu la mu waxoon ci la fekkente ni moom euh, Bah Diakhaté preuve ndax andi na preuve yuy finde ni lim tuumal Ousmane Sonko ci biirum borom ñaari tur yi am na yu wax ba wax ba tutal beneen tur xaritu Ousmane Sonko te itam am na nee nan yooyu mu jël jëmale ko ci Ousmane Sonko ci la ñu wax nee na 2022 la ñu andiwaat vidéo bi teg te vidéo bi boo diw lañuy premier ministre Ousmane Sonko ndax 2022 Ousmane Sonko dafa nekkoon premier ministre déedéet maanaam mbir de dem ba toll foo xam ne rek yu baree bari ci mbir nga deltu ci mun ta wees mun mënta ñàkk te du wees waaye nag li ñu ci mën a jàngatee mooy moo moo xam muy baa jaxate te itam démb bi ñuy def àtte euh, bi alamin da xool ci bunt bi ci génn ñu bare bari ñu ngi leen jox ay micro ñuy wax mais dañuy waxaat même xeetu lu baa jaxate waxoon kàddu yu ñekkas parce que ñoom ñoom dañoo jàpp ni dañuy politique wala dañuy jël kàddu gu ñaaw jëmale ko ci Ousmane Sonko ba tax jàpp na lu leen neex mën nañ koo wax wala lu neex mën nañ koo def dafa am loo xam ni dafa yëllu tara rafetul te itam jot na sëkk nag bu dee dañuy jubbanti euh, yoonu Sénégal nañ ci jubbanti loolu nit ku nekk wërta am sañ-sañu toog lu ko neex mu wax wala muy saaga nit ku di doon ndax dafa wax xalaatam wala dafa wax nangam yooyu wax dëgg yàlla war na fay jeex te na ci def ci liggéeyam dem ci ba jeex moo ci moo ci moo ci wax. mu ngi noonu xam naa nag dañuy euh, def rek tour de table après mën a delluwaat fi nga xam ne nii mooy sikaat